soxna muslimatu mbàkke soxna muslimatu mbàkke mi ngi feeñ jamono ci atum 1918 ci dëkk bii nag di ndaam daaru xalimul xabiir ci bisub altene fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmm ci atum 1337 ci gàddaay gi di doomu soxna faati tuuti jóob ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim am na nag ñum mbokkal soxna faati tuuti jóob ñu ràññee ci magam ja soxna jóob mbakke bintu soxna faati tuuti jóob bintu sëriñ tubaa seexul xadiim sëriñ ahmadu moxtaar mbàkke ibnu soxna faati tuuti jóob ibnu sëriñ tubaa seexul xadiim sëriñ abdul muhaymin Aminu Mbàkke ibnu soxna Faati Tuuti Jóob ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim sëriñ Xaamidu Mbàkke ibnu soxna Faati Tuuti Jóob ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim soxna Roqayatu Mbàkke bintu soxna Faati Tuuti Jóob bintu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim sëriñ Murtada Mbàkke ibnu soxna Faati Tuuti Jóob ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ak moom soxna Muslimatu Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim bintu soxna Faati Tuuti Jóob moom bi mu feeñee jamono ci atum 1918 bañ yëgal ko waajuróom wi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim Seexul Xaddiim nag doon na laaj ba xam soxna Faati Tuuti Tuuti Jóob góor la am wala jigéen ñu di ko xamal ne jigéen la am mu ne nañ ko tudde muslimatu doon na ca teg itam nag di xamal ne soxna Faati Tuuti Jóob mii de gan gii mu am jigéen la waaye cirub góor lañ ko fàggul bi matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ tubaa seexul xaddim moo ko woolu ci njaareem dalal ko alxuraanul karim ginnaaw bi itam nag la ko jébbal sëriñ ndaam abdourahmaan loo ci ndaam daaru xalimul xabir ci loxoy sëriñ ndaam abdourahmaan loo nag la nekk ba mokkal alxuraanul karim ginnaaw bi itam nag lañ ko jébbal sëriñ mouhamadou Jóob dagana ci dëkk bii nag di kayal wala tuubaa kayal ci ñaari jëmm yii nag la jaar ci wàllu njàngum alxuraanul karim ak nag lii di xam-xam mu wéy nag nekk nag ci loxoy waajuram soxna Faati Tuuti Jóob ba ni sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim génnee àdduna ci atum 1927 laataa waajuram wa sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag di génn àdduna waxoon na magam ja Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke di ko xamal ne soxna Muslimatu Mbàkke mi nag su ma dem kër na nga ko jébbal sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo fekkoon na nag lu ko jiitu magam ja soxna Jóob Mbàkke mi ngi ci loxoy sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo ba ci atum 1930 ci 1930 jooju nag la soxna Jóob Mbàkke génn àdduna ci atum 1935 nag la ko cheikh Modou Moustapha Mbàkke jébbal sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ba tax na soxna Muslimatu Mbàkke mook sëriñ Ndaam Abdourahman Lo nag am na ñetti bant muy sëriñ Moustapha Lo ibnu sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ibnu soxna Muslimatu Mbàkke sëriñ Fàllu Lo ibnu sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ibnu soxna Muslimatu Mbàkke ak sëriñ Lamin Lo ibnu sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ibnu soxna Muslimatu Mbàkke ñetti bant yi nag la soxna Muslimatu Mbàkke am ci loxoy sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo mu wéy nag des nag ci loxoy sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo ba ni sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo génnee àdduna ci atum 1943 magam cheikh Mamadul Faadal Mbàkke moo ko jébbal cheikh Issa Diène ci atum 1945 mu wéy nag nekk nag ci loxoy cheikh Issa Diène ci atum 1945 ba ni cheikh Issa Diène génnee àdduna soxna Muslimatu Mbàkke mook cheikh Issa Diène sax am nañu njaboota mu ku ñuy wax sëriñ Abdou Salaam Diène sëriñ Abdou Salaam Diène sax moo toog toogaayu soxna Muslimatu Mbàkke dëkk bu ñuy wax Ndànd itim foofu foofu itam nag la ko Cheikh Issa Diène yóbbu woon mu wéy nag nekk nag ci loxoy Cheikh Issa Diène ba ni Cheikh Issa Diène génnee àdduna ci atum 1959 la ko Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag jébbalaat nag sëriñ Hamsatu Jaxate ba tax na soxna Muslimatu Mbàkke mook sëriñ Hamsatu Jaxate itam nag am nañu njaboota muy ku ñuy wax sëriñ Abdou Muhayminu Jaxate mu wéy nekk nag ci loxoy sëriñ Hamsatu Jaxate ba ni mu génnee àdduna ci atum 1969 mu nekk nag liggéeykat bu ràññeeku moom soxna Muslimatu Mbàkke ndax kan doona lool dong nag la leen fi seen waaju waajur wa bàyyiloon di sëriñ Tuubaa Seexul Xadim magam yi mu xam itam nag di Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ak Cheikh Mamadul Faadal Mbacke ci loolu itam dong nag lañ ko tàggat tax na itam nag soxna Muslimatu Mbacke nekk itam nag baykat nag bu ràññeeku nag ci biir murid yi ba tax na ci at mii ñu tudde atum 1952 jàpp 1953 lu tolloog 30 tonnes yi gerte soxna Muslimatu Mbacke ñoral na ko ci dëkk bii nag di ndaam daaru Halimul Xabiir mu nekk itam nag ku ubbeeku nag àdduna ba tax na itam nag tubaab yi fi newoon ñu tudde leen colonialiste yi na naa am ak ñoom itam ab relation am na benn tubaab ñu doon wax orli yàkk wala réew soxna muslimatu mbàkke la woon amoon na lii di am magasin bu mu jaayoon kii di soxna muslimatu mbàkke ca jamono jooju ci deux cent mille francs magasin bi keroog bi ko soxna muslimatu mbàkke jëndee ci orli yàgg moomu ab oto jib su mang ca woon ak juróomi téeméeri seng ak ay machine yi nji ak ay machine yu mbay taxoon na soxna muslimatu mbàkke daa yëngutu ci wàllu mbay ba nekkoon ko ci xarañ ginnaaw bu ko tubaab boobu di orli yàgg jaayee lii di magasin ba te jib su boobu nekkaale woon ca soxna muslimatu mbàkke faboon na gips boobu liggéeyaat ko ba gips ba mel ne tracteur di bay gips boobu nag ak machine yooyu mu jëlee woon ci Orliac ci magasin boobu mu ko jaayoon nag taxoon na ci 1952 mu ñoral 30 tonnes yi gerte mbay moomu soxna muslimatu mbàkke di bay ak gerte googu muy ñoral taxoon na nag mu amal relation ak yeneen i colonialiste yi fi newoon am na beneen tubaab bu ñu doon wax kërémi yi kërémi yi boobu amoon na mbàkke sax daana jaay ciment ci jamonoy colonialiste yi ba tey ci liggéeyub soxna muslimatu mbàkke lii di ron yi nekk diggante ndaam daaru halimul xabir ba ci dëkk bii di tuubaa lasar soxna muslimatu mbàkke mooy ki ko fi def soxna busa jóob bintu sëriñ cheikh fatak jóob wax na njabootuk soxna muslimatu mbàkke di leen xamal ne ron yi nekk diggante ndaam daaru halimul xabir ba ci dëkk bii di tuubaa lasar soxna muslimatu mbàkke moo ko fi def ndax moom bi ko fi soxna muslimatu mbàkke di def mi ngi teew ndax foofu tooli soxna muslimatu mbàkke la gerte gii mu daa bay wala tool yi mu daa bay foofu la nekkoon ginnaaw commerce boobu soxna muslimatu mbàkke daa yëngatu ba daa jaay lii di ciment këram gii mu amoon itam ci tuubaa nekk ci yoonu gede wi te dend ak lii di jumaa ji soxna muslimatu mbàkke na sax ba defoon ko lii di ab usine ci nekkinam cheikh mahamadul faadal mbàkke xeer wi keroog sax bi cheikh mahamadul faadal mbàkke di teg xeer wi mi ngi wax soxna muslimatu mbàkke tabax waañ rek mel ni kuy naal jàkk nii wala juma soxna muslimatu mbàkke di ko wax ne ñun kay dañuy tàmbali rek waaye ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xadim mooy eggale ba cheikh mahamadul faadal mbàkke doon na ko wax ne tuub naa ko ginnaaw bu mu dul faadal mbàkke tegee xeer wi kër soxna muslimatu mbàkke googu ngir mu def ko bërëbub liggéeyukaay di këram googu daana fa liggéey lu bare bare bare ci atum 1960 bi sénégal di am indépendance napp yi nga xam ne ni moom la Senghor doon lalal gan ñi ñëwoon ci feetu national boobu napp yooyu ci kër googu lañ ko defare keroog bi ñu yóbbu napp yi soxna muslimatu mbàkke doomam ji ñuy wax sëriñ mustapha loo la yónni sëriñ moor matiloo ak ku ñuy wax sëriñ useynu sekk ñu yóbbu ko ndakaaru président Léopold Sédar Senghor ginnaaw napp yooyu mu daa defar ba nguurug Sénégal daa ko jënd si ba tey ci kër googu soxna muslimatu Mbàkke daana fa defar lii di cere tudde ko cerey Touba ak cere yi ñu tudde woon cere marocain loolu itam taxoon na lii di tubaab yi daana ñëw Touba di seet si liggéeyub soxna muslimatu Mbàkke am na lu tolloog ñeenti almaa yi fi masoon a ñëw ngir di seet si liggéeyub soxna muslimatu Mbàkke dégg gu ñu dégg soxna muslimatu Mbàkke ci liggéey bu am solo bi Fatimatu Mbàkke amoon nañ fi diirub juróom-ñetti fan kër Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke lañ daloon almaañ yi nawoon nañ kii di soxna Muslimatu Mbàkke ba ne ko sax buñ delluwaatee almaañ danañ fexe ba indil la ab usine boo xam ne nii cere ji ñoom danañ ko man di paqueté ca jamono jooju ku ñuy wax Pape Diouf ab fonctionnaire la woon ci nguuruk Sénégal moom la soxna Muslimatu Mbàkke dénkoon projet bi Pape Diouf mi moo jiite woon directoire de la sécurité alimentaire valeur boobu almaañ yi signante woon ak soxna Muslimatu Mbàkke ñi ngi millions moom la usine bi waroon a jar bi almaañ yi delloo almaañ nag laataa ñuy dikkaat kii di Pape nag amoon na ay jafe-jafe ak nguurug Sénégal ñu mujj ko jële ci poste boobu ñu ko dénkoon teg fa kaneen Pape Diouf mujj dem Nations Unies bi almaañ yi dikkee nag la nguurug Sénégal signewaat ak ñoom baneen convention ñu mujj installé usine bi Ndakaaru tudde ko Grand Moulin de Dakar waaye Grand Moulin de Dakar usine bi soxna Muslimatu Mbàkke mooy kii ko négocié woon ak almaañ yi fi ñëwoon doon ko seet si ba tey ci liggéey boobu soxna Muslimatu Mbàkke daa liggéey ci këram kere yooyu mu fi daa liggéey nguurug Sénégal siñente woon na contrat ak kii soxna muslimatu Mbàkke ci li ko dale ci atum ba 1963 bépp ujaaj bu aji màkkatal mukarrama kere yooyu soxna muslimatu Mbàkke doon defar ci këram gi nekk Touba ci ngay jëfandiku ki siñe woon contrat bi ak kii soxna muslimatu Mbàkke ci turu nguurug Sénégal ci atum ba 1963 mooy ki jiite woon ajug Sénégal di Masamba Joxaane kon lii day dëggal ne rek soxna muslimatu Mbàkke liggéeykat la woon te lii di Touba ndax nguurug Sénégal daana siñanteeg moom ay contrat ngir ñuy liggéey siñante contrat boobu mu amoon na nguurug Sénégal saxoon na nguurug Sénégal wóolu ko ba signé waataat ak moom beneen contrat mu jëmale ko ci gendarmerie nationale gendarmerie nationale liñ daa jëfandikoo itam soxna Muslimatu Mbàkke mooy ki ko daa defar ndax nguurug Sénégal moo siñante woon ak moom ngir muy dundal gendarmerie nationale kon liggéeykat la woon moom soxna Muslimatu Mbàkke ñaari oto yim yoroon itam muy jibs boobu mu jëndoon milliards bu mu jëndoon ku ñuy wax Mor Mbay moo yoroon jibs bi ku ñuy wax Ngañ Jóob moo daa dawal 404 bi ngir soxna Muslimatu Mbàkke man di yóbbu bépp produit bu mu defar bërëbu liggéeykaay boobu mu amaloon ci Tuubaa di kër boppam ba daa fi ràbb lii di ay nàpp ba nguurug Sénégal daa ko jënd mu daa defar cere ñi ajkati màkke yi daa ci jëfandiku gendarmerie nationale itam mucc ci woon loolu itam taxoon na kër googi mu taxawaloon ci daaray alxuraan ju a mag fay ay jàngalekat ñu nekk fay jàngale kër googu Amar ak ku ñuy Absatu Jeng soxna Absatu Jeng mi moo meññ sëriñ Cheikh Fall Mbawoor ak ku ñuy wax soxna Daba bintu Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ak ku ñuy wax soxna Muslimatu Saar bintu bàyyi Sëriñ Saar ibnu Cheikh Ibrahima Saar Njaañ ci jàngalekat yooyu soxna Muslimatu Mbàkke jëloon ngir ñuy jàngale ci kër googu ka fa mujj ci wàllum jàngale ku ñuy wax Basiiru Faal la woon ba mu fa jógee sax yàggul ndax ci xilaaf ak sëriñ Mustapha Lo mi ngi fi ku daa dimbalee la moom soxna Muslimatu Mbàkke ba tax na daana tukki ci biir réew mi su masaa dem fenn nag bañ ziyaare ko dana laaj laajaat ca dëkk ba xam amul kenn ku fa am bor bu munta fayam ndéetitim wala amul kenn ku fa am ay jafe-jafe yu ko të suñ ko ko waxee mu dajale leen fob lépp lu mu am jox leen ko kon ku doon noon seexul xaddiim la ci joxe ak lii di dimbalee ci lool nag la sax ba nim génnee àdduna ci atum 1969 ràññeeku googu mu ràññeeku ci biir réew mi loolu itam taxoon na nguuru Sénégal ràññeeku ci biir sénégalais yi ak sénégalaises yi ba takkal ko lii di médaille ci atum 1962 décret boobu ñi ngi ko signé bisub samedi 7 juillet 1962 numéro décret bi ñu takkale soxna muslimatu mbàkke médaille moo nekk 07 bar 262 médaille bi moo nekkoon cavalier ordre mérite ngirug njàmbaaram akuk ràññeekoom ci liggéey bu muy liggéeyal réewam di Sénégal ku ci bëgg nag lu la gën a leer man ngaa dem ci musée Henriette Bathily bi nekk Gorée daa ko fa fekk mënoon liggéey googu mu mënoon liggéey taxoon na nag mu nekk jigéen du ràññeeku ci réew mi mu am bis mu am benn signature bu muy toppatoo ci entreprise boobu mu taxawaloon ci Touba ak tooli boppam yi signature bi mi ngi ko soxla woon ci directoire de l'agriculture booba mi ngi ci wetu SCIB bu Jurbel ab tubaab moo ko jiite woon di kër googu du directoire de l'agriculture keroog ba fa soxna Muslimatu Mbàkke demee mi ngi àndoon ak Serigne Moustapha Lo muy doomam keroog tubaab bi da ko naroon a jox loxo soxna Muslim Mbàkke di ko wax ne téyal sa loxo bi man duma jox góor loxo ki ma yàlla booleel ci biir néegu sëy àndal sama doom la waaye duma jox góor loxo tubaab bi gis na boppam bisub keroog ba xañ soxna muslimatu mbàkke signature bi ginnaaw coow loolu fukki fan ak juróom lañ ci teg ñu dàq lii di tubaab ba tas kuréel googu di directoire de l'agriculture def ko ministère de l'agriculture jël ku ñuy wax ndax Ndaxta Mbay def ko ministère de l'agriculture Ndaxta Mbay mii nag doomu ndar ndar la waaye jamono jii ñuy waxee yéen Cees la dëkk jël ku ñuy wax Ibrahima Tall nommé ko gouverneur bu Jurbel kon Ndaxta njëkk nekk ministère de l'agriculture nekk gouverneur bu Diourbel ndaxte Mbaye moom bi jëlee fonction ànd naag kii di Ibrahima mi nekkoon gouverneur bu Diourbel ñu ñëw Touba seet si kii di soxna Muslimatu Mbàkke di ko wax ne ginnaaw buñ ko nomee ci poste boobu ñëw na daal fekk fa ay signature yu bloqué te bi laajtee dañ na ko soxna Muslimatu Mbàkke moo ko moom doomu Seexul Xadim la mu bëggoon ñu dekkalaat projet bi yeesalaat signature yi soxna Muslimatu Mbàkke mujj na am ndam ca tubaab ba bisib keroog bi ndaxte Mbaye ñëwee di ministère de l'agriculture ak Ibrahima Tall muy gouverneur xamsatu jaxate lañ fekk soxna muslimatu mbàkke ci teewaayu sëriñ xamsatu jaxate ak ñuy wax baay jaane ñoom fekke nañ keroog bi ministre bi ñëwee ak gouverneur bi ngir di yeesalaat signature yi kii di Mamadou Dia nekkoon ex chef du gouvernement bu Sénégal soxna muslimatu mbàkke la mujjee recevoir ci biroom ndax ginnaaw bu soxla muslimatu mbàkke sàkkoo audience ci moom ba wutaloon ko lii di bis keroog bi soxna muslimatu mbàkke demee ndakaaru ngir Mamadou Dia recevoir ko ci palais bi soxna muslimatu mbàkke kër Mamadou Dia la njëkkee dem ñu di ko xamal Mamadou Dia tey jii ca palais ba lay recevoir e. soxna muslimatu Mbàkke dem ca palais ba trois heures la gisee kii di Mamadou Dia dix-sept heures fekk na ko mu jóge ca pale ba keroog bi mu eggee foofu moom mu Mamadou Dia sax xëqante nañ ca biir palais ba ndax bi soxna muslimatu Mbàkke demee da doon jàng lii di alxuraanul karim Mamadou Dia di ko xamal ne seen téere yooyu ngeen di jàng ngeen war a bàyyi di jàng fu ngeen toog soxna muslimatu Mbàkke keroog ma ngay tontu Mamadou Dia di ko xamal ne téereb suñ borom bi fu ma nekk danaa ko fa wax ginnaaw xëqante boobu muslimatu mbàkke ngir mu signé ko soxna muslimatu mbàkke mujj na ko signé mamadou dia ma nga doon wax soxna muslimatu mbàkke ngir mu signé ne contrat bi mu séqoon ak nguuru sénégal ngir dundal googu muy dundal gendarmerie nationale mamadou dia ma nga bindoon ne kii di soxna muslimatu mbàkke démissionné na ci loolu këyit yi mamadou dia joxoon soxna muslimatu mbàkke lool moo ci nekkoon ci bis boobu mu ko recevoir bis boobu itam la mujjee recevoir doomu aadama ci palais bi 17 heures soxna muslimatu mbàkke jóge na ci palais bi 20 heures arrêté nañ kii di mamadou dia guddi keroog sax soxna muslimatu mbàkke Mbàkke Léopold Sédar Senghor moo ko booleeg gendarmerie nationale ñu escorté ko ba ci Thiès ndax couvre-feu la nguurug Sénégal amaloon audience boobu soxna Muslimatu Mbàkke amaloon ak kii di mu Mamadou Dia soxna Muslimatu Sarr bintu Baye Serigne Sarr ibnu Cheikh Ibrahima saar Njaañ la àndaloon ak ku ñuy wax baay Diané kon ñooñu la mu Mamadou Dia mujjee recevoir ginnaaw bu loolu passé la Senghor gisee kii di soxna Muslimatu Mbàkke di ko wax ne xam nga lan nga siñante woon ak Mamadou Dia soxna Muslimatu Mbàkke di ko wax ne mu ne ko Mamadou Dia daf nga dafa waxoon ne nga signé ne bépp contrat boo signante woon nguurug Sénégal bàyyi nga ko Mamadou Dia it jaar naa fii ak soxna Muslimatu Mbàkke kon ba tey dëgg rek muy mucc jëf bintu seexul xaddiim doom googu mu nekk doomu seexul xaddiim taxoon na bisu keroog bi mu feeñee lii di jamono Serigne Touba seexul xaddiim laaj na ba xam kii di soxna Faati Tuuti Jóob gan googu mu indi lan la ñu di ko xamal ne jigéen la mu leen di wax ne moom di cërub góor lañ ko fàggul loolu nag tax na fépp fu soxna Muslimatu Mbàkke jaar doom yu góor rek la fa am muy ci Daam abdourahman loo cheikh isaa jenn ba ci sëriñ xamsatu jaxate kii di magam di cheikh moodu moustapha mbàkke itam seedeel na ko lu am solo ndax soxna muslimatu mbàkke créateur la woon ci wàllu togg mu am bés mu toggal kii di cheikh moodu moustapha mbàkke ay bernde yit ko jëmm jooju di cheikh moodu moustapha mbàkke ginnaaw bu ci cheikh moodu moustapha mbàkke jëfandikoo ba noppi laaj na kii di soxna muslimatu mbàkke li mu togg lan la soxna muslimatu mbàkke di ko wax ne mal fuuf laa ko tuddee cheikh moodu moustapha mbàkke sant na ko gërëm ko di ko wax ne soo nekkoon góor de duma sonn ko ndax danga ma taxawu ci wet gune magam jeneen ji di ma cheikh mamadul faadal mbàkke itam seedeel na ko ndax bés bi ma cheikh mamadul faadal mbàkke ñëwee di teg lii di xeeru kër gi kerew mi ngi tooñ kii di soxna muslimatu mbàkke di ko wax ne tabax waañ rek mel na kuy naal jàkk ak jumaa nii soxna muslimatu mbàkke di ko wax ne mbàkke bàll kay ñun dañuy tàmbali rek waaye ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mooy eggale cheikh dul faadal mbàkke nee na ko tuub naa ko ginnaaw bi nag la koy wax ne soo nekkoon góor de taalibe yi jébbalu duñ jébbalu ci kaneen gis la Faatu Mbàkke yaa ma doy ci tubaab yi ndax xam nga sa bopp bisub keroog itim turki daraa ji Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke soloon da koo summi solol ko soxna muslimatu Mbàkke ngir seedeel ko ak njàmbaarteem magam ji di Cheikh Mamadul Basiir itim am solo ci rakkam gi di soxna muslimatu Mbàkke ndax doon na wax ne bu xoolee jëmmi soxna muslimatu Mbàkke de jigéen la koy jox waaye jëf ji moom jëfi góor rek la moo tax sëriñ Basiiru Mbàkke rajji latun la daa wooye soxna muslimatu Mbàkke ngir ak njàmbaarteem moo taxoon tim nawoon na ko ba faboon doomam tuddee ko ko fabaatoon beneen doomam bu ñuy wax soxna daba mbàkke jox ko ko ndax jikko ji nekk ci soxna muslimatu mbàkke mu koo def ci ñooñu colonial siitim seede nañ lu am solo ci soxna muslimatu mbàkke tubaab bi ñu tudde orliyaak seede nañ lu am solo ci soxna muslimatu mbàkke orliyaak nag mooy tubaab bi ko jaayoon lii di jibs bi ginnaaw bu soxna muslimatu mbàkke jëndee lii di jibs bi da koo defoon tracteur di ci bay bu noor jotee mu ciy dugg di doxe lii di soxlaam ginnaaw bu ko orliyaak gisee nag ñëwoon na ci soxna muslimatu mbàkke di ko wax ne ku muus nga ndax oto bi pour ligsi la te yow dang ci bay di ci ligs soxna muslimatu mbàkke moom itam mi ngi doon tontu tubaab bi di Orliyaak di ko wax ne yaa ma gën a muus ndax yow yaa defar gips bi Léopold Sédar Senghor mi jiite woon réew mi di Sénégal itam ku nawoon kii di soxna muslimatu mbàkke la ba tax na daana ñëw Tuubaa ay yoon di ko gane si Léopold Sédar Senghor itam ku daa jàppale kii di soxna muslimatu mbàkke la moo tax it daana ko wax ne muslimatu danga jiitu sa temps ndax jamonoy laan 2000 nga kon soxna muslimatu mbàkke ku nekkoon jàmbaar la loolu itam taxoon na nguurug Sénégal takkal ko médaille ci atum 1962 Cheikh Moussa Ka di bindkatub xaadim rasulitim way na ko ci jikkoom ak melokaanam ak nangoo liggéey gu soxna muslimatu mbàkke nangoo liggéey nangoo liggéey googu mu nangoonu liggéey na tax na doomu baayam yi kenn ku ne tudde na ko doom Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke di magam tudde na ko doom Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke magam tudde na ko doom magam Cheikh Mamadul Lamin Baara Mbàkke tudde na ko doom magam Cheikh Mamadul Basir Mbàkke ibnu Sëriñ Tuubaa xaadim rasul tudde na ko doom magam Sëriñ Abdullahi Mbàkke borom dër bi tudde na ko ñaari yoon doom magam Sëriñ Ibrahima Mbàkke ibnu Sëriñ xaadim rasul tudde na ko doom cheikh abdul ahad mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasul tudde na ko doom sëriñ tubaa cheikh abdul xaadir mbàkke tudde na ko doom cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasul tudde na ko doom yeneen mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul ñépp itam nag tudde nañ soxna muslimatu mbàkke doom ci gàttal daal bépp muslimatu mbàkke muñ gis ci yoonu murita soxna muslimatu mbàkke lañ la tuddee wala kañ ko tudde soxna muslimatu mbàkke lañ ko tudde ndax mooy muslim bintu xaadimu rasul wala réew cheikh moussa ka la woon ba daana woo cheikh Ka lu bari di ko liggéeyloo ba tax na lii ñu tudde jazaawu sàkkoor Cheikh Moussa Ka mi ngi wax ci jazaawu sàkkoor di wax ne ginnaaw yàlla bu ko bindee soxna muslimatu mbàkke moo tax mu bind ko ndax dafa amoon bis soxna muslimatu mbàkke woolu woon kii du Cheikh Moussa Ka di ko laaj ci jaar-jaaru ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim kero sax la ko Cheikh Moussa Ka di ko wax ne fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmmu de la fi Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bàyyi ko woon ci quartier bii di Daaru Marnaan ngir mën a dem gànnaar nakate ci bis boobu di fukki fan juróom-ñeent ci weeru la soxna muslimatu mbàkke atum lii di jamono loolu itam moom moo taxoon sax soxna muslimatu mbàkke di màggal bis boobu ginnaaw bu ko cheikh Moussa Ka netti leen lu bare bari ci jaar jaaru ku baax ki tubaa seexul xadim soxna muslimatu mbàkke xamaloon na ne cheikh Moussa Ka na ko bind way ko ndax bu ëllëgee kat murid yi feeñ jamono te fekkewuñ lii mën caa sukkandiku ngir mën a xam lii di histoire bi moo tax boo dégloo lii di jasaawu sàkkóori jiiri ji cheikh Moussa Ka mi ngi ciy tudd ñetti yoon kii di soxna muslimatu mbàkke ci wuutee ngir tudd bu ne ci biir jasaawu sàkkoor soxna muslimatu mbàkke moo tax ak itim di sàkkuwaale ci darajey soxna muslimatu mbàkke moom mi sàkku mu bind jësaawu sàkkoor ngir mu ñaanal ko mu man koo eggale ñu teewlu fi ko cheikh Moussa Ka njëkk a tudde ngir di leeral nit ñi ne su ko bindee soxna muslimatu mbàkke moo tax danaa la waxat baaxiyaan ci dox bi ci litaat yi lam nga fonk bis yi danaa la wax fu mas a jaar caag sa si dewar ci jërijee baxaama wam sa si bii di la soxna muslim mbàkke màggal moo jara màggal ku ja dem fa màggal moo tax ku màggal mag sargal xaaraju yu ma sa tira bi moo safar la bamba wax màggali dal dane xasar yow soxna mu limatu nag ma ñaanal ma wér baa gëli ko réew mi sargal yow soxna mu limatu yow mi waada dogul ma wér ceng baa muraada danaa fi wéy lu tuddi saaw sàkkoor ci ay xibaarin saara bi ngay buur xibaari nit ki xat yotee juróom yaar ci jiiri ji man la yem juróom yaar foofu la ko Cheikh Moussa Ka njëkk a tudd ci jazaawu sakoor di ko wax ne yow yaay waada waada nag mooy ki nga xam ne nii moom moo waral lépp Cheikh Moussa Ka tuddaat na ko faneen ci biir jazaawu sakoor di wax ba tey rek fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wii di weeru gàmmu bis bi Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bàyyi ko ci daarul marnaan gi ngir mën a dem gànnaar li tax mu way ko ba tey rek ci soxna muslimatu mbàkke la bàyyi ko ndax moo ko sàkku ci moom ngir mu way ko ñu teewluwaat fi ko Cheikh Moussa Ka tuddaat ngir rek ba tey di firndeel ñiy déglu jasaawu sàkkoor di wax ne su ko woyee soxna muslimatu mbàkke moo tax alhamdulilahi xaalal quduumi dem dellu gaa ngi dellu dem qadiimi ma wax la bis ba bamba gontee daaru jëm ndar bi wiy gànnaar ba naar yey waaru fukki fan ak juróom ñeneenti gaawo la bamba gontee daaru dal de saaw bii bis la soxna musli doon jay màggal ba tax ma woy ko yàlla naa ko àggal pudul kon nag moom du ma wuy xibaar yi te suli yaa ndam yi war na bëri ñetteelu yoon bi Cheikh Moussa Ka tudde kii di soxna muslimatu Mbàkke ci jazaawu sàkkoor mi ngi wax ne bu dul woon ak soxna muslimatu Mbàkke du way way yii mu way muy jazaawu sàkkoor kon soxna muslimatu Mbàkke moo ko xirtal ba mu way ko ñu teew teewlu ko yàlla na mu bur yàlla defal ci Bàmba lu kawesun yéene fegal nu sanda amina amina na leen amina ci dara jaay muslimatoog may muna moom baayam ba sos gi yàlla na boole mbuuti mboolem kër gi gaawu la baayam xëyee mbakke baari gaawu la daaru jëm gànnaar soxna muslimatu mbakke roy na la baayam digliwun ci réew mii budul ko nag moom duma wéy lii man mi pendel mu gën tubuy la jar na araamal méegal ga moo kon loolu lépp rek dañ leen ko doon indil ngir di leen wax ne bu Cheikh Moussa Ka waye jazaawu sàkkoor kii di soxna muslimatu Mbàkke moo tax moo tax Cheikh Moussa Ka di ko wax ne ginnaaw sa waajur wa yaa tax màggal yi bari ginnaaw màggal googu soxna muslimatu Mbàkke daa màggal bisub fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmmu di bis bi waajuróom demoon ci réew mi di gànnaar ak ràññeeku gum ràññeeku woon ci nguurug Sénégal ak baykat bu mag bi mu doonoon ba taxoon nguurug senegal takkal ko lii di médaille moom soxna muslimatu Mbàkke loolu itam taxoon na kii di Cheikh Moussa Ka way ko ay way ngir di ko ci tagg di firndeel askan wi ne soxna muslimatu mbàkke liggéeykat la woon ñu teewlu way yi ko cheikh Moussa Ka way ngir di ko ci sant ka gërëm ngir itam bëgg bu ëllëgee ñi fekkiwul woon jamonoy soxna muslimatu mbàkke suñ gisee way yi xam ne soxna muslimatu mbàkke ku ràññeeku la woon ci dundam ñu teewlu way yi ko cheikh Moussa Ka jagleel bismillahi rahmaani rahim ma ñëw fi tagg doomi seexi bamba mi yor tabek baay bi ak sëriñ ma sàmba xam naa bu doon góor kenn du raam di jébbalu ci ku ko muminina teg ca muslimaat la yàlla wax muslimatu mooy turwaati jigéen ju ndaw ju bëgg am lislaam na nga ko siyaare kon nga am karaama ku bëgg am salaamatan wa aafiya na dem siyaare soxna musli ak aaliya pendal mu gën tubay jar naa raamal miiteel ga moo gën kaala yen araamal pendal mu gën tubay jar naa raamal miiteel ga moo gën kaala yen araamal wattu na alxuraan ca kër daam ba muy xale ca darajay baayam daam xam naa ne rangoona midaayi baatin yoo xam ne yàllaa moo yor kun moo tax mu dëkkaat ndaam ba donn boodi sancaat kërug baayam nga bëgg a donn boodi Cheikh Abdou mas na koy gërëm fa Tuuba Cheikh Amsatu moo seere ngërëm la booba sirub Xadimal mustafa ak Serigne Ndaam ak i ngërëm moo tax mu dellu si sancaat ndaam kër gile moo ko war a moom ci baatin diggante ndaam ak daaru moo leen attan kër gile daaru salaam salaamatan wa aafiya soxna muslimatu mbàkke jokkoog bokk ya daaru salaam gilee di daaru salaam la soxna yoon na ay tool murid ya ngir àllarba góor jigéen muy sàkkumaa di larba te xam ne fu mu jëmati yokku daara ya musal sëriñ sa dolli barkeb aaw ya dem leen bayal ko tooli gerte ya fandaam fu mu woon a wuy si mel ne kuy siyaare daam nee leen maryamu baabu ak astu baabu nañ waat te futtikuwaat la baabu ak waa musóobe ak naar yi sant amar nan bés di foon te di ko raay te bun mer yow soxna muslimati doomi seyxuna xadiima xayril aalamiina wuy si na yaa wuy si ku yaa boole mbuuti soxna faati tuuti ñoom ñëpp biddiw lañu te yaadab jant yàlla na nga tiim ñëpp te yokkub cant man siyaare naa la fii daari man njàmme ka musalma min kulli malam ngir daaru gii la bamba mujj sanc ca kasa sin mbaaxaan ñëw mu wàcc fukki fan ak juróom-ñeent gaaw ci weeru gàmma la fa gontee xaawu keroog la jaar jurbel di wéy ba gànnaar dellu siwul ci kër gi lii doyog waa diftul karima wa ataaba xiraa wala asaalu kas siraaji la bamba bant ba mu demee dagana dellu bindaat wilaw ba it bamba amul fii nden bitul karima wa ataaba lil xira wala asaalu kastiraji fil xira Cheikh Mourtala Mbàkke di caatum bamba na dëkke caat ci kër gi far di bamba kon dana mujj boole booti daaru yi saahir wa baatin mooy way ko Cheikh Moussa Ka way mu wii di yar ak a jàngale soxna muslimatu Mbàkke bu xëyee balaa def dara dana jàng lu tolloog ñaar fukki Égypte lii di naafitim daw ko fàtte su paree nag doo ko def lépp lu ko war ci wàllu liggéeyu kër ku fonkoon diineem la ta mën a dimbalee nekkitim lii di doomu aadama moom soxna muslimatu mbàkke ku safoon xorom la te mën a jàngalee moom soxna muslimatu mbàkke am na bis muy waxtaan ak soxna xadi mbàkke soxna xadi mbàkke ci ñi seex murtada mbàkke dëkkoo woon la bokk mu naan ko xadi man de dama waaru dafa mel ne man muslimatu bañ may bind mag ñi ñoo taxoon ndax sëriñ daam abdourahman loo mat na ma waajur cheikh isaa jenn itim mat na ma waajur ba ci kii di sëriñ amsatu jaxate li tax nag ñu indil leen kàdduy soxna muslimatu mbàkke yi mooy képp kuy jigéen wala ngay muslimatu ngir nga a roy ci soxna muslimatu nii ndax kat bépp jigéen képp ku la suñ borom booleel ci wàllu sëy nga war ca góor góorlu ba wut ca suñu borom loolu rek moom moo tax ñu indi leen kàddu soxna muslimatu yi ndax xamoon na ko ba daana ko wax saa bàjjen yi ndax yar ak jàngale ak liggéey rek mooy ndono lu leen fi seexul xaddim bàyyil te loolu itam la gis magam yi mu toppoon di ko wéyee muy cheikh Modou Moustapha Mbacke ak kii di cheikh Mamadou Fadal Mbacke ba ci magam ji di cheikh Abdoul Ahad Mbacke soxna muslimatu Mbacke mi ngi génn àdduna ci feebar bu ko tëral ci hôpital principal bu Ndakaaru hôpital principal principal bu ndakaaru boobu soxna muslimatu mbàkke tëddoon ci wàllu wéradi gi ko daanaloon lu yéema moo fa xew ginnaaw bu fa soxna muslimatu mbàkke tëddee mi doon sàkku ci waa hôpital bi bu fekkee ni jigéen munu koo faj nañ ko bàyyi mu génn lii di àdduna waaye bu ko góor laal docteur yi xamaloon nañ kii di soxna muslimatu mbàkke lool ngay sàkku moom dana mën a am góor moom mën na laa bañ a laal waaye jigéen moom moo lay faj waaye nag dafa am laneen lu ci xew fu ñu jaar opéré la soxna muslimatu mbàkke di wax lii di docteur yi nañ ko bàyyi mu génn lii àdduna ndax rus na barki sëriñ tubaa seexul xaddim mu di ko xool am lenn lu manqué ci yaram wi mu di ko wax muslimatu anamu mu di ko wax ni dama bëggoon a dund moo tax ma ñàkk ko ci wéri di googu la mujj génne lii di àdduna ci hôpital principal bu ndakaaru ngir bañu opéré ngir bu ëllëgee mu dajeeg waajuram sëriñ tubaa seexul xaddim mu di ko xool di gis lenn lu manqué ci jëmm ji mu di ko laaj muslimatu anamu mu di ko wax ne bëggoon a dund moo tax ma ñàkk ko ci diiru tëdd googu mu tëdd ci hôpital principal bu ndakaaru jikko jëm fa yore woon ak melokaan gam fa yore woon taxoon na lii di ab waa ak ab njaago bu mu tëddaloon ndoowoon ci hôpital ba ginnaaw bu ñu amee doom ci hôpital bi ñaari doom yooyee soxna muslimatu mbàkke lañ leen tudde ngir baax gum amoon ci yeneen malade yi kon nag mujj na génn àdduna ci feebar boobu bisub altene ñaar fukki fan ci weer wii di weeru tabaski ci atum 1388 ci gàddaay gi altene ñaar fukki fan ci weer wi di weeru tabaski ci atum 1388 ci gàddaay gi dëppook muy lundi 10 mars 1969 lundi 10 mars 1969 ci hôpital prince municipal bu ndakaaru ñu yëgal ko ki toogoon toogaayu waajuram di cheikh abdul ahad mbàkke mu wax rakkam ja cheikh abdou xaadir mbàkke mu taxawu ko kon cheikh abdou xaadir mbàkke moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci tuubaa ci armeer yu mag yi ay xalifaam nag ñii la tëdde moom soxna muslimatu mbàkke ci atu 1969 ba 2005 sëriñ mustapha lo ibnu soxna muslimatu mbàkke ibnu sëriñ ndaam abdourahman lo ci atum 2005 ba nëgën ñaareelu xalifa soxna muslimatu mbàkke mooy sëriñ abdou salaam jenn ibnu soxna muslimatu Mbàkke ibnu Cheikh Issa Diène moo fi toog 2005 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ boroom guddal aw fanam te yokk lii di wér gi te yàggal ko ci toogaayu soxna muslimatu Mbàkke ak mbooleem ñun séqal soxna muslimatu Mbàkke moo xam doom la ba ci sëtt soxna muslimatu Mbàkke am na bis buñ koy fàttaliku bis bi sax moom moo ko daa taxawal boppam muy fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmmu di bis bi fi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim bàyyi ko woon doon dem gànnaar ci résidence surveillée bis boobu daana ko fàttaliku ci nekkinam ginnaaw bu mu fi bàyyi ko nag njaboot ji di wéyal nañ ko di ko fàttaliku boole ko bis bi nga xam ne itam ci la feeñoon jamono mu dëppoog bis boobu muy fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmm ci atu 1918 ñu boole ko fukki fan ak juróom-ñeent weeru gàmm ci atu 1903 bi fi seexul xaddiim bàyyi ko kon ñaari bis yooyu lañ boole muy benn di ko ci fàttaliku ci Tuubaa ñuy ñaan ci dara jay muslimatu doomu seexul xaddiim bi yàlla na suñ boroom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te guddal fanu mboolem njaboot gim fi bàyyi ci dara jay waajuram xaadim rasul amin رسول آمين رسول آمين رسول آمين